tàmbalee suñuy kàddu nag ay kàddu yu nuyoo yoo xam ne dañ koy tàmbalee suñu kilifa suñu waajur sëñ Saliou Fall Fat Sow nga xam ne ñun lu ñu mën rek walla nu ñu mel bañ ñuy tagg wala ñu koy wax si moom la. Euh, li ñu may def loo nañ tey lu ma lu ma lu ma lu ko man mënuma def lii foog naa c'est la première fois may def lu mel nii du sama du sama. nature euh, du man man li ma mën mooy xalaat lu rafet euh, def euh, wax ji nag xam naa du du gudd sax ndax ñoom li ñu wax lépp lu baax ci ci man ci ñoom la nekk mais di wax juste rek ni lii ñu def nii dañ ko xalaat amoon nañ ay idées yu bari waaye bi ñu xalaatee nii ñun li ñu bëgg mooy jëf joo xam ni kon ma leen di xamal rek ni jëf ji loolu rek moo ko moo ko wund ñun daal fii lañ nekk ci koñ bi di ay xale lu ñu am Mbàkke moo ñu ko may ñu bëggoon nag lépp lu ñu am ñu delloo ko Mbàkke waaw ci ci ci côté yëpp nag waaw lépp loo xam ne bu ñu ko defee ñii fi nekk du suñuy yaay suñuy rakk suñuy baay dañ ciy gis seen bopp amuñu ci lu ñuy xaar dañ koy def mbaar mi bi ñu koy defar damaa génn fii rek woo ko téléphone wax ko mu ni ma faal nañ ma defal devis bi ñaata la moo ñu def devis bi ñu def ko à l'espace deux mois lañ ko defar kon loolu jëf te yàlla tax rek la waaw moom nag dafa baax rek di wax ci man waaye lépp luñ fi tudd fii fii benn donateur la am muy moom man damay xalaat rek ñu wax ko mais moom mooy le seul donateur wax naa ko sax jëlal kàddu mu bañ li ma yow jël waaye ma leen di xamal rek ni ñun ay ñaan lañ soxla sant ñaa soxlawuñu sax gërëm liñ soxla mooy ay ñaan ngir ñu mën a am kàttan am doole ba jàppale koñ bi ndax lépp lu ñu def daf ñoo war dañoo war waaw xeeb nañ ko lool lool lool kon li ñu soxla rek mooy ngeen ñaanal ñu ba ñu ko ba ñu mën ko waaw jëf ji nag dañuy tudd man ak Souleymane mais c'est c'est un groupe boo xam ni yaatu na baabu mi ngi fii ci ginnaaw Bada Sarr mu ngi fii ñoom Mbaye Seck ñëpp a ngi fii donc ñooñu ñëpp ñu ci biir ak ñeneen ñi nga xam ne sax mënu ma tudd seen tur waaw li ma ci dolli xanaa di woo ñëpp ci lii képp koo xam ne ci koñ bi nga dëkk wala ngay nit ku baax koo xam ne lu baax ñor na la ñu ngi lay woo ci yii nga xam ne moom lañ def muy des actions sociales boo xam ne dafa jëm ci askan wi ñu ci woo ñëpp. waaw képp koo xam ne daal da ngay roy lu baax te mu ñor la nan ko rey def ko wala nga ñëw fekk ñu ko fekk ñu suñu ànd ko yow ndax loolu mooy suñu yéene am nañ yeneen yoo xam ne ñu ngi koy mbëbët ñu ngi ñaan yàlla euh, dimbali ñu ba muñ ko eggale ah, di santaat ñi nga xam ne ñoo fi ndax woow tey si la yombul te nit ñi si nañu en masse muy ñu ci ëpp di ay jigéen ay mag ñoo xam ne amoon nañ yeneen yitte ñëw wuy suñu ñu ngi leen di sant ci loolu di waxat di leen ñaaxaatit ci lii sëñ Dieng wax Moussa ngeen déglu ko bu baax parce que boo amee carnet bi te mënoo ko utiliser foog na amul sens mais ñu ngi woo également ñi nga xam ni ñoo nekk ci koñ bi te te ñu mën ko ñu dem adhérer si mutuelle bi ñu wut ay carnet ku mën a kenn nga enrôler ko boo amee rakk boo xam ne mënuma ko dimbali nga dimbali ko parce que ñun jubluwaayu jëf ji maanaam siiwoo ko loolu rek lañu si jublu mooy nit ñi roy ñu si li ñuy def def ko waaw te sama nijaay sax moom moo waxoon moo ne mën nañ ko def mais sinon kon ñun dañuy ñëw rek joxe dem suñu yoon mais moo ne mën nañ ko siiwal ba mu siiw waaw balaa may mënuma nag euh, tënk te nuyu euh, santuma sama sëriñ yi nga xam ne ñoo fi nekk muy sëñ Daam ak sëñ bas di jéggulu ci toog gi may toogandoog ñoom ci kaw ndax ñoom samay kilifa lañ waaw maa ngi leen di sant ci wuy bi ngeen wuy si waaw di di santaat bu baax ñëpp euh, di leen jaajëfal euh, di di wax ni kon asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa def ak leneen ak leneen yoo xam ne ñu ngi koy def di ko mébét te ñëwagul euh, seen seen lii ñu def defewuñ ko fii ci université ba ba ñu nekkee université lañ commencé woon di def ndimbal lii ba tey ñu ñëw fii muy Souleymane Thiam ak Serigne Cheikhouna Fall kon ñun cinquante personnes yi ñu may ay carnet ñun waa koñ bi dañ koy sant bu baax a baax di leen rafetlu tamit mboolem koo xam ne jox nañ la carnet nanga ko farataal di ko faju si fii ci hôpital yi ak foo foo ko war a mën a fajoo waaye ñun aksi bii ñu def sant nañu ci bu baax a baax a baax a baax ndax ay xale yu am jom lañ xale yu nangoo liggéey yoo xam ne liggéeyuñu tey rek ci social saa bu ñu yeewoo ñoom ñu ngi liggéey ci social. déedéet mosuma ci nekk waaye ci bàjjenu gox laa. ok donc euh, le fait nga dugg ci tey ak carnet bi ban njëriñ la la mën a jural. ban njëriñ la ma a ma dem su ma dee fay téeméer cent franc laay fay loolu sama njëriñ la sama njëriñ yeneen jigéen ñi la su fekkee ni tey dama war a jënd ordonnance cinq mille jënd ko mille franc la njëriñu jigéen ñi la te ndimbalu góor ñi la tamit ñi nga xam ne ñoo ñu waroon mën man yooyu njëriñ laa xam ne am na ko ci man. jëf ji li ko waral mooy euh, dañoo dëkk ci doon ay ndaw nekk ci koñ bi te ku ne paaleen wax maam Cheikh Ibrahima Fall te ku ne maam Cheikh Ibrahima Fall xam ne paaleen moom ñoom ñoo ko jiite. Euh, ma am taw féexu xamanteeg waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall te kii nekk sama ndeyjoor di sëñ Xaadim Fall di surtout maam Cheikh Ibrahima Fall. ndax euh, sëñ Saliou Fall Fat Sow moo ko jur sëñ Saliou Fall Fat Sow sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha maam Cheikh Ibrahima Fall moom mu nekk nit ku baax koo xamante ni saa su ne day def lu baax ci koñ bi mu amoon initiative dimbali waa koñ bi di sama wóllëre wax ma ne dafa bëggoon ñu enrôler ay femmes ci couverture maladie universelle ngir ñu mën a dem faju ji ndax ñun ñu dëkk ci koñ bi xam nañ ne saa su ne ñu gis sax nit gaañu fi ndax paludisme saa su ne ñu gis nit jaar gaañu fi sax ndax jaare maanaam da ngay gis ay décès yoo xamante ni à chaque fois da ngay xam ne ñii li ko waral yàlla moo ne ci ginnaaw waaye ay néew ju doole lañ ci loolu nag yàlla dogal ñu dëkk ci koñ bi yàgg fi doon fi ay xale jàngee fi màggee fi li ñu yàlla wërsëgale ak su néew ñu fas yéene koo bokk ak waa koñ loolu moo waral loolu moo waral euh, activité bi. nañ yëngu ci ay activités yu bëri ci éducation école primaire bi nekk fii mës nañ leen jox 300 table banc Euh, poste de santé bii aussi am na mbaar mu fi nekk moo xamante ni sëñ Xaadim Fall ak ñun ñoo ko fi defoon te loolu lépp pour dimbali askan wi la. tey ngeen ci wér gu yaram. tey ñu ñëw ci wér wér gu yaram. te fas la nee yam foofu. fas yéene wuñ cee yam. Hmm. waaw ngeen fas loolu moom dañ ciy waxtaanaat ñun ñu ngi ci ginnaaw sëñ bi rek moom lu mu wax rek fu mu joxoñ rek ñu. ah non politique développement la. politique c'est-à-dire tey nekkuñu ne di nekk fii c'est-à-dire que lii ñuy def tey. ñun nekkuñu di laaxatu wala ñu def leneen ak leneen bu doon dañu poli mës nañoo politique. Mhm. man jiite naamel mel jiite UJTL nekk fédération nationale des cadres libéraux et cetera. maanaam bu fekk koon ne acte action politique la dañuy dañuy dañuy dañuy. dañ naan fàng mhm. waaye lii ñuy def politique taxul ñu koy def. te loolu yaakaar naa ne ñi ñu xam bu ñu leen waxee ne lii politique taxul ñu koy def euh, dinañ ñu gëm ndax bu doon politique la amaana duñ ko defee nii.